ñun tiitaange mënul am nekk ci ñun parce que Barthélémy bi ko tàggat kon xam nañ ko bu baax du dëgg euh, wax ni lii day dal suñu xaar rek parce que day wane ni Médina taxaw na ñun ñu ngi dem commune par commune di xool commune ba mooy taxawaay te gis ngeen ni du meeting départemental benn responsable Médina muy le maire Seydou Gueye moo ko woote te gis ngeen ni mu mel kon loolu day euh, Cheikh Ahmed Ba euh, la dernière fois woote na gis ngeen ni mu kon day wane rek benn euh, benn fii euh, réalité la fii ci ci Médina te Médina rek commune bu rëy la donc bu ñu gagné Médina dama lay wax rek boobu local la woon national la ñun fi mu ne nii moom mooy dem à la conquête ñun dañuy jéem a maintenir suñu résultat parce que législative bi jeex nii député yi ay député Benno Bokk Yaakaar la ñun suñu liggéey tey mooy ñu maintenir suñu suprématie boobu parce que lépp lu élection nationale boobu léegi fii ci Ndakaaru Benno Bokk Yaakaar gañe na ko kon nag euh, yàlla la rek ñun ñu ngi def suñu liggéey de gox par gox ñu gis ni Benno est une véritable réalité bu nekk